xam nga ñun hmm, du ñu ay xale donc euh, ba ñu juddoo ba léegi compagnie sucrière lañ fi gis muy usine boo xam day produire sucre maa ngi fàttaliku ba ñuy ndaw ñun ci parti de gauche lañ yoroo yàgg nañu xeex usine boobu yàgg nañ ni monopole bi nga xamante compagnie sucrière mu ko yor di ben usine boo xam ne moom am droit defar sucre ken amul droit dugal sucre Sénégal loolu du yoon ndax dëkk la buy dox il faut initier et encourager la compétitivité donc mënuñu comprendre Sénégal depuis 60 ba léegi benn usine sucre mënu fee taxaw man je me demande privé sénégalais yi lan moo tax ñu mën ñu lool tay marche bobu mu organisé Richard Toll génne population Richard Toll da ni guéné euh les travailleurs de la compagnie sucrière mais lool tay wa UNACOIS ñoom ñoo ko waroon def xex ngir nguru Sénégal autorisé ba usine sucre pour que compétitivité concurrence mëna am sénégalais ay la yooyu nañu nangu ni sucre dafa cher té qualité sucre aussi ñëpp ñu ngi koy ñu koy ñu koy euh, ñu koy ñaxtu donc sénégalais, tay sucre bi jóge bitim réew mom mo leen gënal sucre bi ñi défar sen réew ndax qualité sucre mom mo baxul léegi comme ni mako ko wa une quoi, ak population Sénégal ñom ñoo waron marche ngir beneen usine sucre wàcc fi mais compagnie sucrière nañ ko wax dé mënu la satisfaire le marché sénégalais en sucre lolu motax tay nguru Sénégal compagnie sucrière du leen gënal askanu Sénégal duñu tok di dé nak ñak sucre duñu tok am pénurie sucre ñu naan non état Sénégal boba état mom moy payer les pots cassés donc lolu tax état autorisé à ce que commerçants yi dem importer du sucre parce que ñom li ñuy yor doyul mais lan moo tax li ñu yor doyul te du ñu nangu léegi ñenn ñi dem si sucre andi Sénégal